mbokki Sénégal ak li ko wër xibaar bu neex ngir yéen seen leket seen leket di entreprise buy jaay ay produits locaux di meññeef yi nga xam ne ci réew mi la fekk baax lee entreprise ay ndaw ñoo ko samp jëfandikoo meññeef yi nga xam ne ci réewum Sénégal lay bàyyi ko waaye tamit suqali lu jëm ci wàllug mbay meeg koom-koom bi seen leket ngir noppal leen andi leen ay produit yoo xam ne coono ak jafe-jafe yi ngeen doon jànkonteel jeex nag entreprise bii ñuy wax seen leket defar nag ay cere yu mucc ayib yoo xam ne nag defar nañu ko ba noppi jëfandikoo rek moo ci des am nañu tamit ay produit yu baax yoo xam ne ci anam bu sell lañu ko defaree waaye tamit ànd na jeex xarañte gu mat sëkk emballage yu rafet araw itam dañu koy defar ci ni mu gën a sellee am nañu sànqal am nañu tamit ceere bu ànd ak laalo dañuy defar itam tege dege waaye tamit seen café gu neex gi nga xam ne ku ko ñam duutoo ko bàyyi muy café Touba Sam di café gu sell te neex seen lekket am nañu nooflaay jeexte ak tege dege am nañu njurni ci xew-xew yeeg cérémonie yi nga xam ne yéen a ngi koy amal noppale lool ci anam bu sell ñu ne ndax foofu ngeen di yam ñu ne boo xam ne tout tànk yi lañu rawatina ñi nga xam ne nag dañoo xiibon boobale produit ku koy jox sa tu tànk dina taay lii lépp ñu leen wax ci seen i waañ tey jii la gën a jàppandi ak seen leket noppal na góor ñi noppal na jigéen ñi tey nag sunu ay produit ay produit de qualité la moo gën a neex gën a baax gën ci seen wér-gu-yaram ay produit yoo xam ne lépp ci réewum Sénégal lay bàyyikoo seen leket entreprise bi mu ngi ci liberté 6 ci côté mosquée Abbas Sall nekk nag ci institut Kawsara fu ngeen mën di nekk ci biir réew mi ci bitim réew te soxla ci produit seen leket yi le mën ngeen ñëw Ou numéro téléphone 78 403 23 73 78 403 23 73 voilà 76 836 63 23 76 836 63 23 77 802 60 52 76 480 76 85 seen leket mooy sunu mbégte jëfandikooy produit seen leket mooy jàppale sunu koom-koomu Oh, my God.